بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنو تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأغرقه صعودا بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم سني بروم مني يا أيها المدثر ey yow mu muuru muzammil mooy ki sangoo mbàjj al mudassir mooy ki sangoo mantoom qum fa anzir jogal nga waaraate wa rabbaka fa kabbir sa borom yàlla màggal ko wa siyaabaka fa tahhir sa yére laabal ko wa rujza fahjur lépp luy sobe wan ko gannaaw la ca jiitu mooy xërëm ya wala tamnun tastaksir bu leen def mukk ak njëkk di ca sakku ak bërile wali rabbika fasbir ngir sa borom na nga muñ fa ida nuqira fi naaquur waxtu bu ñu ëffee ca ëffukaay ba muy béjjén bu mag ba fa zalika yowma idin yowmun asir loolu de dana nekk bis si keroog di bis boo xam ne bu màgg la bu bu jafe la ala alkafirina gayru yasir ci yéefér yi kenn du ko yombal ci ñoom zarni wa man xalaqtu waxida bàyyi ma maag ki nga xam ne dama ko bind muy kenn wa jaaltu lahu maalan mamduuda ma defal ko alal ju tàllalu wa banina shuhuda ak ay doom yu teew wa ma hëttu lahu tamhiida ma yombalal ko ak yombal summa yatma'u an azid waaye gannaaw ba ma ngi bëgg ma dolliwaat kalla déedéet innahu kaana li ayatina anida moom de nekkoon na sun aaya yi di ko won ak dër bopp sa urhiquhu sauda danaa ko forcé mu yéeg mbugal moo xam ne day jëm kaw am ñu ne saud benn montagne la ci biir jahannam mi ngi noonu mbokk suñu boroom defal na formation yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu tolloog ñetti at gannaaw ba mu wàcce ci moom al mudassir daa di koy nomi ar rasul ne ko léegi nag génnal ci sa xeet bi nga woo leen ci woote bu bir doonte ni ni lu jiitu porte à porte rek la doon def ci ña nga xam ne daa am ci ñoom yaakaar kon jógal nga waaraate te loolu it mbokk julit moo doon la ko yàlla yónnee woon te loolu moo gën a yey doonte ne dafa nekkoon bashiran wa nazira daan bégale ak di xuppaate waaye bala ngaa mën dem ci mbég da ngay jëkk a bàyyi te mooy kenn mënta jaar yoonu àjjana lu dul da ngaa bëgg a da ngaa jëkk a bàyyi yoonu sawar mooy laa ilaha illa allah laa ilaha mooy wan gannaaw lépp lu ñuy jaamu ca du yàlla illa allah doog a saxal yàlla loolu nag lu bari ci doomu aadama yi xamuñu ko ñu bari bari ci doomu aadama yi dañoo jàpp ne diine mooy nga julli woor aj makka mbokk déedéet diine mooy nga jëkk a bàyyi lépp loo xam ne ni ay xërëm laa ki caaxaan mi nga noonu loolu yi mooy njëlbeen moo tax mu ne fansir léegi it sa borom fa kabbir sa borom boobu na nga ko màggal te moo ko màggal yàlla mooy ñi fi nekkoon biig ci guddi ñu ngi noonu am na lu ñu ci déggoon mooy jullit heure boo xamee ne nii yaa ngi julli la gën a feeñ muy allahu akbar tey jii ab yéefar bu xamul diine bu ñëwoon fii fekk ñu julli tàkkusaan lan moo koy impressionné mooy toujours allahu akbar allahu akbar daanaka lan moo koy rax mooy sami allahu liman hamida ak asalaamaaleykum waaye li ci des lépp allahu akbar allahu akbar allahu akbar li muy firi mooy lii yàlla digle amul kenn koo xam ne dana ma ko tere bu ma bàyyi ko tey jii koor a ngi nii yow soxna si sa sa borom kër ñëw ni la bul woor ndax da nga koy topp ci loolu déedéet allahu akbar sa bàyyi ni la bul woor allahu akbar sa directeur ne la dindil muuraay gi allahu akbar képp koo xam ne ci jaami yàlla mi ngi lay tere ndigal allahu akbar waaye li yàlla araamal sangara sa njaawloo sa sàcc ga képp koo xam ne dala koo sant ak kookul ciir boo ko mën a jox da ngay xam ne allahu akbar moo tax mu ne ko wa rabbaka fa kabbir màggalal sa boroom te bokk na ci màggal yàlla booy bañ koo bokkaale kenn bañ koo yemele kenn bokkaale mooy ki yemele yàlla ak leneen kon kooku màggalul yàlla rabbaka fa kabbir gannaaw ba mu ne ko wa siyaabaka fa tahhir laabalal sa yére doonte ne laabal googu mbokk julit ñaari yére la am yére bu njëkk bi mooy yére bi ngay sol naam laabal ko bala ngaa juli na na na laab ci sobe na laab ci sobe nga noonu mën naa tilim du tee ñu mën koo julli waaye sobe moom bu mu ci taq waaye nag suñu borom mu ne wa libaasu taqwa zalika xëyr yére ragal yàlla mooy li gën mooy fexeel ba yow yonenti yàlla bi lenn duñ lay mën a critiquer bu mu am lu ñu lay critiquer bu mu am moo tax suñu borom subhanahu wa taala mi ngi naan yéeféer yi ci jullit ñi wa ma naqamu minhum illa an yuminu billah amul lenn lu ñu leen critiquer lu dul ne dañoo gëm yàlla abu sufyaan keroog ba ka xërqal woowee di buuru la nga xam ne nii égypte di ko laaj ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko waaw lu ngeen xam ci moom avant muy wax wax ji abu sufyaan da koo tagg xamuñu ci moom lu dul ak mbaax waaw ndax xamoon ngeen ci am ay fen mu ne fen fen wu gën a rëy daal mooy fen wi mu wax waaye nag kenn xamu joloon ci fen xërqal na ko déedéet nit ki mënta judd ba am 40 ans musul fen premier fen mu fenal yàlla gis ngeen ala kulli xaal yow ndawal julit bàyyi xel loolu yow ndawal julit mi góor góorlu ci sunna xamal ne ambassadeur nga fexeel ba ay mbon bu mu nekk ci yow waa ji nga xam ne daa gis ngay njaaloo ku mel noonu ndax mën nga ko tere njaaloo mu bàyyi ko waa ji gis na yow mi ab truand nga ndax mën nga ko waar mu bàyyi ko kon fokk yow mi nga xamee ne da ngaa bëgg a woo wax nit ñi di leen woote ci dëgg war ngaa góorgóorlu ba bàkkaar moom mënta ñàkk waaye di nekk sa digganteeg sa borom waaye am ma société bi moom duñ am lenn luñ lay ah luñ lay tooñee suñu mbokk alpulaar yi ab léeb rek dama koy léeb pour nit ñi comprendre dañ ne dañuy dem di bëgg ubbi jumaa ja léegi imaamu caameen yépp ñëw ku ne may jiite ku ne may jiite coow li na kur am benn mag ne xam lu ñuy def nañ woo laaj jigéen ñi ba xam kan moo gën a yeewee imaam biñ ñëwee ñu ne ah ana Mor Thiam taxawal benn soxna jóg Mor Thiam yow yaa ngi woote imaam ay jëppo yaa ngi def ku taxaw rek ñu mu demee noonu ba naa nañ di wooyu bàyyi boog bàyyi am na juróom-ñetti fukki at ne bàyyi boog ak yatam mu ñëw taxaw biñ taxawee jigéen ña fa nekkoon kenn waxul dara bu mujj rek fàttaam jóge fa ne eh ala wala moo di caam jëppo waaw loolu am léeb rek pour ngeen comprendre ci la ma bëgg ci loolu mooy yow ndawal jurit defal attention mooy yaa ngi représenté lu bari ci diine yéeféer bi jëf leen teeg benn jurit mu war ko mu jëf leen teeg keneen mu war ko lu muy wax jurit ñi ay ay trian lañu mi ngi noonu ay trian lañu am nañu suñu benn mbokk ndaw buy ñëw fii nee na dafa dem Chine bi ñu demee Chine ñu am fu ñu def commande bi ñu defee commande ñu ne nañ leen denc bi suba daan ñoo fay chef établissement bi ne ah mais dañ leen fay lan moo garanti da ngeen ñoo fay benn ci employé na ko na ko chef ñii ay alaaji lañu lu ñu wax rek dëgg la jëf ngeen ñii luñ ay alaaji lañu ndax yëri ñu sol ñii ay alaaji ñoom ñu xam ci jullit mooy alaaji ay alaaji lu ñu wax dëgg la waaye ngal la waay dawal julit wala yow mi waaraate fexeel ba bul dégg baatu accam mais li muy wax lépp accam loolu day tax ba sa da'u du jàll moo tax borom bi ne su yonente bi alei salam siyaabaka fa tahir libaasu taqwa na nga ko gànnaayoo borom bi it ne ko lépp luy xërëm wan ko gannaaw arrojs mooy xërëm ak lépp lu bon wan ko gannaaw te it lépp looy def na yàlla tax wala tam nun tastaksir bul defal kenn njekk ngir jublu rek moom it mu defal la njekk na am loolee da ngay gis ne cos nekkul mën naa doon sax loo xam ne duñ ko féetale ci lu xaraam waaye bul nekk di def la nga def ci yàlla tax ba pare di ko puukarewoo loolu yàlla bëgg ko di def lu baax ba pare di ko puukarewoo di def lu baax ba pare di imposer nit ñi ngir ñu defal lu baax loolu yow bu ko def te it ngir yàlla muñal te it mbokk loolu la ñu bari di fàtte ci wàllu muñ yow soxna si nekk ci kër gi ñu lay sonal mën nam sa jëkkër la sa wujj la say njëkke la e waaye muñal ci yàlla tax li rabbik na yàlla muñ ci yàlla tax yow mi benn waay ñëw tooñ la sa employé la sa surga la man nga koo duma man nga koo tëj lu ne man nga koo def waaye fasbir li rabbik mooy muñal rek ci yàlla tax te xam ne képp koo xam ne muñ na ci yàlla tax yàlla du ko seetaan wali rabbika fasbir borom bi nag di gannaaw ba di wax loo xam ne nii mi ngi nar a ñëw suñu kanam mooy bis bu sante israfil na ko na ëf béjjën bi béjjën boo xam ne waxoon nañ leen ko ci gannaaw bu ko ëfee asamaan ak suuf yépp day xotteeku yonent bi alai salam nee na sax na béjjën bi ba pare sahaaba yi na ko ah waa ñun fu ñu jëm mu ne qulu xasbuna allah wa ni'mal wakil nee leen xasbuna allah wa ni'mal wakil yàlla doy nañu doy na ko ñu wakkirloo borom bi nee na keroog bis bu jafe lay doon kenn du ko yombal ci yéeféer yi jàngoon nañ ko sari ci gannaaw cinquante mille ans lay lay lay duré bi se penc cinquante mille ans lay duré yàlla mu ne kenn du ko woyefal ci yéeféer yi daañ fa taxaw cinquante mille ans avant leen yàlla di yóbbu sawara amma bu dee ne nag yi julit ñu baax ñi yàlla da ko yombal ci ñoom ba mel ni diggante takku tisbaar ak takkusaan yàlla na yàlla boole ñu ci moo tax mu ne alal kafirina ghayru yasir waaye bu dee julit ñoom dañ ko yombal ci ñoom borom boobu nag daal di ne yonentam bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi maag say-say bi te kooku mooy walid ibn mughira nekk kilifa giñ gënoon a respecté ci makka bàyyi maag say-say bii nga xam ni maa ko bind moom kese bi mu ñëw indiwul dara ma may ko alal ju tàllalu maa leen mam duudaa tool bale moo ko moom jurgale moo ko moom lële moo ko moom lu ne alal joo xam ne fu ne am na fa alal may ko ay doom yu teew ca mbokk loolu bokk na ci xéewal tey ji ñu bari ci ñun suñuy doom yaa ngi tasaaroo Europe ak Amérique tubaab yi di leen fawe lu ko waral mooy ak dañ fay wuti teraanga waaye bu ñu amoon teraanga fii duñ def loolu dem ci sedd yu metti yooyu waaye kii moom teraangam yaatu na ba ay doomam soxla wu ñu tukki fenn doomam yépp a ngi teew ndax ndax ay teraangam borom bi may na ma yombalal ko ak yombal ma xëttalu tam xiida amul lu muy yuutu ci àdduna lu dul jox naa ko lu mu bëgg rek ma jox ko gis ngeen léegi nag mu bëgg ma dolli ci encore ca mooy lan mooy moom moo war a nekk yonent yàlla gis ngeen ba yéeféer yi naan lawla unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim anul teewoon yàlla bi muy yónni mu yónni abu mas'ud as-saqafi ca taif wala mu yónni alwalid ibn mughira ci makka ah lii ma ko defal yépp teewul mu weddi ma ba pare nag nee an azit man moom laa war a name mu nekk ab yonent borom bi mu ne kalla wan na gannaaw suñuy aaya danaa ko dugal ci mbugal moo xam ne bés bu ne day gën a tàng sa urhiquhu sauda mufassiruna yene saud benn montagne sawara la bu nekk ci biir sawara malaaka yi dañuy gurgur yéeféer yi du dóor bol yi nan leen yéeg leen ñuy yéeg ci montagne sawara buñ yéegee ba ca cat la rotaat ngi noonu loolee mbokk kon benn mbugal la ci mbugali jahannam yal na yàlla fegal ñu mbugalam adduna ak alaxira yal na yàlla defal ñu àjjana mi suñu wàccuwaay ma may ñu aafiye fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw almuzammil mooy ku muuroo mbajji almudassir mooy ku muuroo yére mi ngi noonu mooy ku muuroo yéreem la ñu tudde mudassir amma masad loolu ci tàndarama lay jógee xànce tàndarama xànce tàndarama moom la arab yi du xamoon ci buum gi gën a dëgër ci buum yi soo demoon suñu àll yi ay xànce buum lañ daan xànce guy lañ daan jël su ko defee nag xablon min masad suñ ko deferee ba mu dëgër ay ponkol buñ dajewoon mënuñu koo dagg borom bi nag ne yowmal qiyaama kii di soxna si abi lëhëb daan takk ci baat bi hablun min masad di ko diri ci biir sawara donte ne ne sawara la fay nekk mooy ay chaîne wallahu subhanahu wa taala aalam naam ala kulli xaal naam bismillah naam aleykum salaam wa rahmatullah ah naam ndax pomp day yàq koor loolu daal borom xam-xam yi dañ ci am ixtilaaf dañ ci am ixtilaaf ci ñi jàpp ni pompe bi mën na an produit boo xam ne nii dafay jeexital ba yegg sa biir am na nag ay yenn borom xam-xam ñoom dañu ne jëmme pompe gaz la gaz la boo xam ne ci poumon yi lay yem du yegg ci biir kon asthmatique bi nga xamee ne nii dafa nekk bëccëgu weeru koor su dee ne dem na ba affaire fat dikkal ko mu jël benn pompe boo xam ne nii day dugg ci ay poumam rek loolay yàqul kooram wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ndax kii doon julli ci gannaaw imam imam bi jàng fatiha daa di ne mudhamatan daa di roko bi mu ko waxee mu ne yàlla nee na ngeen jàng la woyof ci alquran kooku imam la buy fayoo julli donte ne yow mi julli ci gannaawam julli ga baax na waaye nag loolu fayoo julli la boo ko ku ne xam ne ne ni suñu borom buy wax jàng leen la yomb ci alquran mooy jàng loo xam ne dañ koy comprendre tey mudhamatan mooy ñaari jardin yi yàlla wax ca aljanna loolee mbokk da ngay gis ne ki nga xam ne da koy dégg ban compréhension la ci mën a am looloo tax ba dañu naan nañ jàng ma tayassara mooy loo xam ne day nekk jumla mufida ci ñu jàng tuuti naxu mooy day doon phrase bu ñu comprendre fokk mu doon phrase bu ñu comprendre ba nga xamee ne nii tey jii boo waxoon la nga xam ne sax mooy da nga ne qul huwa allahu ahad loolu sax lu ñu comprendre la mi ngi noonu waaye tey boo toogoon rek nga ne comme ni mu ko waxee jannataan mudhamataan loolee mbokk lan mooy jubluwaay bi ci loolu lu dul ne jaay xam-xam ak ñàkk xam waaye déedéet heure booy julli da ngay julli aaya yoo xam ne des koo comprendre wallahu subhanahu wa taala alam naam kon mbokk subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk